ayaa latiifu yaa kariimu yaa jaliil commission sociale bu Touba ci kanam di waajal social safar muy grand magal bu Touba édition 2024 ginnaaw bi ñu ci amee ndigalu xalifa général des mourides Serigne a Mbacké fas yéene amal ay activités sociales ci taxawu mboolem ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ci dëkk bu sell bii di Touba ngir ñu mën a dundal màggal gi ni ko sëriñ bi santaane muy sant bernde ak jaamu yàlla moo tax ci màggalu Touba édition 2024 bi commission sociale bu Touba ci kanam fas yéene taxawal ñeenti waañ yu mag ci sancaan yi ci mboolem ñeenti xible rëy yi ci dëkk bu sell bi di Touba muy njaabi nekkee ci penk bi Daaru Salaam Tawféex nekkee ci soowu bi Sànc Camara 2 nekkee ci bët gànnaar bi ak quartier Serigne Saliou nekkee ci bët saalum bi te jëndal leen ay nag ak ndugg ak lépp lu muy àndal ngir toggal leen ci diirum ñetti fanu màggal gi muy ndékki añ ak reer waaye indiwaale fa ay ndaw yu jàng alxuraanul karim saa su ne noonu it lañu koy amalee ci prison bu Mbàkke jox leen ak dund ci diirum ñetti fanu màggal gi ba ci prison bu Jurbel ñoom it ci bésub gi ñu fas yéene ànd liggéeyal sa réew ci màggal gi ci jébbal leen ay subvention muy kuréel liggéeyal ku tedd ki kuréel wàllu ak yeete ahlu café ak association Daaru Sow ba léegi daañu taxaw résidence Xaadim Rasul bi nekkee ci Touba Daarul Manaan nga xam ni gani sëriñ bi ci kilifa yu mag yi ñu ci bëri fa lañ leen di dalal ñu taxaw leen ci mboolem jumtukaay yoo xam ne dañ koy yittewoo ci barab bi ngir taxaw yooyu le waaye fas nañu yéene jënd lu toll ci juróom benn téeméer ak juróom fukki basang yi nga xam ne ñetti pili lay doon jébbal ko lu ëpp téeméeri daara ci dëkk bi ngir jàppale leen ko ci màggal gi ay wa leen ngeen di xaar ñëw jàpp ci liggéey bi def ni Serigne Mountakha Mbacké su ngeen ci bëggee barkeelu mën ngeen ko def ci numéro bi am na Orange am na Wave mooy commission sociale bu Touba ci kanam jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفور